bala ak leen baala ñu ñëw ak siyaar bi ibnu أيده الله ونصره ñu ngi ñaan suñu mënta xaar suñu borom yàggal ko te eggaleel ko ay mébétam ak yéeneem seen yu rëy yi ak naalam yi ak rafet yi yàlla matal yëpp dañ ànd moom di nuyu di siyaare mboolem njabootu Serigne Touba ak mboolem mbokki sëriñ tubaay yi ak mboolem seexe Serigne bi ak mboolem taalibe Serigne bi di nuyu di siyaare jëwriñ pàkk bi ñu nekk muy sëriñ Moustapha Ndiaye di ñaan suñu borom subhanahu wa mu defal ko fan wu gudd ànd ak wér xéewal ci saayar ki bàttin mboolem ñu topp ci ginnaawam ñëpp ak mboolem dëkk bi ñu ngi siyaare. ñi nga xam ne ñooy taxawu néego suñu borom bi tabaraka wa taala di ko saytu muy ilimaan yi ak noddukat yi ak ñiy taxawu jàkka ji ñëpp ginnaaw bi ñu bëgg tënk ay kàddu yu gàtt te kàddu yi dañ koy jëmee rek ci lii nga xam ne sëriñ bi wax na ko ci biir xutba bi ne xutba bi dafa yaatu yaatu goo xam dafa matale matale goo xam ne gi saa yooyu xutba rek bu la neexee mën nga see jël benn tomb rek wax ci lañ sa bëgg a wax lépp kon tey dañuy wax rek ci wàllu jaamu yàlla jaamu yàlla ci lañ bëgg a tënk ay kàddu ndax moo tax ñu indi ñu fi ndax suñ borom dafa wax ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yaabuduni maa uridu minhum min risqin wa maa uridu an yut'imuni inna laa huwa rasaaq sul quwwatil matin nee na nit ñi ak jinne yi man yàlla maa leen moom maa leen bind waaye nag lenn dong moo tax ma bind leen loola mooy lan may nañ ma jaamu waxaat ne wa maa umiru illa li llah muxlisina la uddin digaluñ leen lenn lenn ci àdduna pàkk suuf yi digaluñ leen fi lenn lu weesu jaamu yàlla dañ leen lu fi waay def rek sa bakkan nga topp wala nga topp àdduna waaye loolu indi wala fi jaamu yàlla képp moo tax suñu bara wàccin ci kaw suuf jaamu yàlla googee nag mënta yéwén mënta sell te àndut sa kab liggéey moo tax war moo tax doomu di liggéey di daan dooleem ngir am lu mën a tedde ak lu mën a suturloo bu mën a jaamu yàlla ju liggéey suñu borom da koo digle ci alxuraan fam soo fi manaakibihaa wa kuluu min rizqihi wa ilayhi nusuur wax dañu ne fa izaa qudiyatis salaatu fantashiruu fil ardi wabtaghuu min fadlillaahi wazkuruu llaaha kasiiran la'allakum tuflihuun kon yooyu yëpp wane neen liggéey itam lu war la ndax mooy tax jaamu yàlla mën a rafet jaamu yàlla nag mooy lan mooy jëf ndigali yàlla yi bàyyi tereem yi wala wattandi ko tereem yi doo ko jàpp sax ba di ko ba danga koy moytu te ay xeet yu bari na la moom jaamu julli ak koor ak aj ak asaka muy juróomi ponk islaam yi ñoom ñooy fondement bi faaw nit ki leen di gëm dund leen jëfe leen gëm gi ci xol la koy la koy gëm te tudd ko ci aw làmmiñ ma ñëpp ndig ko xam ne kii ab jullit la mu jëfe ko ci ay cëram ba ñëpp xam ne jullit bu baax a ngi nii loolu mooy juroomi ponk yi ponk ba ci jiitu mooy ñaari baati seede yi muy ashadu an la ilaha illa allah wa ashadu anna muhammadan rasulullah loolu mooy ponk bu njëkk ba ponk bu ñaareel ba mooy taxawal julli juróom di ko ànd ak laab ak sart ya ak teggin ya ponk bu ñaareel ba mooy weeru koor su jotee nga woor ko ci kaw niñ la ko diglee ci sàmm ak wattandiku la ca topp mooy asaka su la yàlla may xéewal yoo xam ne yi asaka mat na war na ca te alal ji asaka war day mat nisab mat at so amel man nisab te matulam at asaka waru ci su mateem at te matul nisab it asaka waru ci do di bi war ko baye xel da ca top muy aj makka muy juróomeelu ponk momi itam farata la ben yon ci dundu doomu adam julli jurom jurom yel lañ ko faratal ci bis bi koor ben yon lañ ko faratal ci admi asaka ben yon lañ ko faratal ci admi aj makk nag benn yoon lañ ko farataal ci dundu doomu aadama gépp dañ la ci demaat lu ci toppaat ay baamu la rek wala ay naafi la waaye farata ji moom benn la yooyu mooy jaamu yàlla la ca toppaat mooy ay naafi la naafi la mooy nga tënku ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi lépp loo xam ne jaamu yàlla la nga xool na ko yonent bi doon defee ak na mu ko doon diglee nga di ko defee noona bañ koo def ci kaw bi daa ndax julli yonent bi daf ñuy wax ne sallu kama raaytumuni usalli julli leen ni ngeen gis samay jullee rek jullee leen noonu gis léegi kon formule julli bi mooy taxaw yeeg rukkoo yeeg sujjóot yeeg sàbbal yi ñun ñëpp xam nañ ko fa ñuy rawantee nag mooy xol ba ragal yàlla ga ak teewlu ga nag fa la julli yi gënantee foofu nag nit ki bala faa mën a àgg day am nu ñu ko war a waajale ci wàllu tarbiya looloo tax ñuy wax tarbiya mooy defal sa xol defal sa ruu ba nga xam yàlla xam na nga koy bëggee xam sa xol bii ni nga fay ne yàlla rek ko moom waroo ci xajal kenn ni nga xamee ne bii Seydina Ibrahima mii borom bis bi noonu la joxe woon xolam bi yàlla te boolewoo cee woon dara ba bi mu amee doom sax bëgg gi mu bëgg doom ji rek na ko ak moom ba ne ko man dong nga war a bëgg waaye waroo cee boole keneen loolu laa waraloon mu natt ko doon ko rendi la doom ja ngir xool ba xam Ibrahima man ak doom ji ku mu ci gën a bëgg kon jaamu yàlla lu ñu war di fonk la yaa ayyuhan naasu u'budu rabbakum bimaa bihi xayru wa rajaakum Seexul Xadiim nee na yéen nit ñi. نجين فارلو تي جامو يالا ميغ نمو لين بيدي تا موم لين تا جامو لين كاب نجين جامو كو موتاخ نو مو بيندي لين تي جامو غيت نجين كو تك تي كو سنة سي نتي صلى الله عليه وسلم تا بولين كو تك تي سين خيل ولا سين خلات اسلام ديس كو تك تي خيل اك خلات ان ديننا مبني على النقل لا على مناسبه العقل ولا سيدنا ابو بكر واخون نينا الاسلام داي كو تبخ تي توخال يالا نينا يونتي بي نينا ولا اجماع موي بروم خام خام ميغا خني ديبو نانتي سينو گشت با ديبو تي لي ني لا nga tënku ca loola te bañ a beru di sukkandiku ci sa xelam bopp te loolu lu bëri la léegi ci jamono yi léegi ji ba ci am na ay borom bi xam-xam yoo xam ne te léeg-léeg boo leen deelee déglu ñu laaj leen ne tontu xere lañ koy tontu waaye nekk tontu lu tegu ci xam-xam lu tegu ci alxuraan lu tegu ci sunna loolu mel ne dëgg nga wax te li nga wax nuru na dëgg ndax ab jullit lépp lu muy jëfandikoo ci diineem ne ko tënk ci alxuraan ak sunna su fekkee ne bëgg na suñu borom nangul ko ko waaw su ci bàyyee alxuraan ak sunna sukkandiku ci xelam boppam ak xalaatu boppam boobaa nekkatu ci diine kon jaamu yàlla googu sëñ Tuubaa soññ nañu ci nen nañ ci góorgóorlu te di ko euh, dëppale ak sunna te euh, julli moo gën a fort jaamu yàlla yi bu julli baaxee rek geneen jaamu yàlla goo bëgg def dana yomb ci waaye nit ki waxtu bu sàgganee julli dootu mën a baax jaamu yàlla goo bëgg googu dalay te ticc doo ko mën ndax inna salaata tanhaa anil fahshaa'i wal munkar julli day dindi ci nit ki ay ñaawteef ak i bon bon kon ku la gën a farlu ci julli tey taxoo kam jàpp di sa sàmmonte laab gi ci aw yaramam ak ci ay siram ak ci pàkk bi muy jullee ak ndox ma muy laabe mu toppatoo yëpp te buy julli te muy jéem a teewlu kem kattanam te bañ taxaw rek aramal ba noppi yebal sam xel muy wër fa ne ci àdduna si ba mu la ndax day niru julli waaye du julli loolu mooy ñi suñ borom di wax naan fa waylun lil musalliina lazina yi ñu ne ko ñaan la mu ne mooy ñi ne bu ñuy julli dañuy sagani seen ak julli laab ga ca war duñ ko def teewlu ko ca war duñ ko def dañuy sëgg ko siggi rek kooku day foye julli ñu la suñu borom ne dana leen yóbbu sawara mu ñëw waylun kon cheikhul khadim li muy soññ ci julli doyna rek nim ko daan jëfé barab bo jaar ñu sëñ bi moo julli won fi ba dem ci barab bax ni bi sharia mayon na ko amoon ngantal ñaka julli ci kaw sharia ci mo ci biir ba mu nee ca ga ndax ci sharia amna circonstance yo xamne bo ca tolloo may na la nga ñàkk julli bu waxtu weesoo nga fay waye sëriñ bi mësta julli ti antok japp mu toy mësta julli ci lu waxtu moo tax ci biir gaal ga ba mu bëggee julli itam njëlbéen waxtu yi dafa jàpp bëgg julli ñu gàntal ko mu toog ba ca digg muxtaar ma mu jàpp bëgg julli ñu gàntal ko ba muxtaar may bëgg jeex nag mu yeesalaan jàpp bëgg julli ñu gàntal ko ci la sànni der ba ci géej ga wàcc fekki fekk ko ngir lan ngir gëm yàlla ak bëgg yàlla ak xër ci def ndigalu yàlla loolu nag ñun murid yëpp dañu ko war a bàyyi xel fu ñu toll te ba a sàggane julli julli ko wax du ko rik sàggane su bàyyi ñu xam diinam lepp lépp yàqu mi ngi melni ne ab bâtiment rek nga ne bâtiment mo bëgg mo bu ci dara sik waye nañ ma fondement bi bu fondement bi dindi dindi dindi ko amato bâtiment julli moy fondement bi moo moy moy kerul islam salatu imadu din wa man aqama faqad aqama din wa man taraka faqad hadama din julli moy kenul islam kep ko taxawal taxawal nga islam kep ko bàyyi màbb nga se diine màbb nga lislaam kon nañ ci gëna farlu te doon ne julli rek jaamu yalla waaye tudd naa juróomi ponk yi nga xam ne ñooy ponk islaam yi te ponk yi islaam yi itam dafa am juróom benn ponk yu ko jiitu yoo xam ne mooy ponk yi ngëm ngëm day am jaamu soog a mën a am ndax ngëm mooy tawxiid islaam mooy fiq ihsaan mooy tasawuf juróom benn ponk yoo xam ne ponk yi ngëm mooy antuminu billaahi wa malaaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil aaxiri wal qadari xayrihi wa sharrihi gëm yàlla ngëm goo xam ne doo ko bokkaale del lenn comme ni ko si bi jàngalee ci tasawuf du sixaar imaanukum yaa ayyuha sibyaanu liman lahu arwaax wal abdaanu antumina billaahi wal malaayika wa kutubi hadi salikin wa salika da ngay gëm ne yàlla suñu borom moom rek mooy buur ko am la ko am la te moom rek it mooy buur keneen du buur tàmbalewut fenn yemut fenn sosowul ci dara jeexewul fenn aras mi naan fa la suñu nekk ñuy wax ne mooy sees bu suñu borom bu nga xam ne bu doon ci misaal dañaa fa lay toog ba mu bindagul aras mi ngi fi woon kon a ëmbul suñu borom xajoowu ko aras menn na mbindeef la ci mbindeef yàlla yi kursi yi mel na mbindeef la ci mbindeef yàlla yi asamaan yi ak suuf yi yëpp ku ci ne mbindeef ko ci mbindeef yàlla yi te ba mu leen bindagut mu ngi na meloon doon kooku sëñ bi nee ko ko noonu la ca topp mooy gëm yi sëñ Tuubaa nee nañu amma jamilu anbiyaa yi wa rusuli fa xakkadun minal uluu fi yaa rajul mboolem anbiyaa yi ak mursaloon yi boo leen boolee cent vingt-quatre mille lañ téeméeri junni lañ ak ñaar fukki junni ak ñeent téeméeri junni ak ñaar fukki junni ak ñeent yooyu suñu borom tànn na ca 313 muy téeméeri xam ne nabi yu dañ koo sol mu am xam-xam bi waaye yebaluñ ko ci fenn wax loo ko mursal na dañ koy sol ba am xam-xam bi ñu yebal ko wax loo ko mursal yooyu bi nekk 313 suñ borom tànnaat ci ñaar fukk ak juróom ñooñu la alxuraan indi seen i tur ci des ñëpp alxuraan tudd leen dana rek yonent bi naa la nettali lenn ci xisa yi yonent yi dana am ñu ma la tuddal am ñu ma la tuddalut waaye ñi mu tudd ci alxuraan ñaar fukk ak juróom lañu biir ñaar fukk ak juróom yooyu mu tànnaat ci juróom tudde leen ulul azmi mina rusul mooy ñi ëpp garaat ci yonent yi juróom yooyu dañuy wax ne mu tànnaat ca ñaar ñaar ñu mu ci tànnaat te juróom yi mooy Seydina Ibrahima Moussa Isa nu ak Seydina Mohamed bu mu tànnaat ci ñaar muy Seydina Ibrahima ak Seydina Mohamed tànnaat ci kenn muy Seydina Mohamed muy xiyaaru min xiyaarin min xiyaarin saadatil bi mooy tànneef bu génn ci biir tànneef kon yonent yooyu dañ leen di gëmee seenu am yonent yi doo gëm ne doomi yàlla lañ doo gëm ne rekk yàlla lañ da ngay gëm ne jaami yàlla lañ comme yow yàlla bind leen def ñoom leer def ñoom xam-xam def ñoom nubbuwa wax loo leen ñu war a gindi jaami boo gëmee yonent yi nga gëm ne malaaka it lu am la malaaka jaamu bi yàlla boo xam ne ñu ngi ko bind ci leer malaaka moom composé ci yaram comme ñun mom yorul jëm yo xamna ji day ko commencé ci ay dérata deret ak yàqati sidit ak yoy mom leer la rek jëm ji yépp leer la motax du lek du nan du nelaw du sey du yek banex sa sabal sen borom moy senuk lek euh, selal ko moy senuk nan ba leen suñu borom bindee ba légui tam lam leen sant ci lañu massa nek musuñ ci aw soppé ko benn bis nga gëm ne malaka lu am la bul jàpp doomé yalla bul jàpp ne rakk yàlla bul jàpp da am benn sen sañ ci ak yalla gi déedéet mo ngi yow yam ci nguur yalla yàlla gi mënu ci sañu ci lu la ko ci borom sant jaam lañ yoo xam ne hum xilaasuñ sidaadun laa yasoona laa ma amaroon waaye falu damaa yumaroon ñu dë am kattan lañ ñu dëër lañ ñu farlu lañ ci jaamu yàlla ñu tënku ci ndigale yàlla yoo xam ne duñ mooy yàlla mukk noonu ngay gëm kon malaaka bi ne noonu la ci gëm téere yi yàlla wàcce téeméeri téere ak ñeent la yàlla wàcce la yonent yi wàcce la yonent yàlla aadama téere yonent yàlla siisa yonent yàlla idrisa yonent yàlla ibrahima yonent yàlla moussa isa nu daawuda ak seydina mahamad téere yi leen wàcce yëpp boo ko seetee sëñ bi nee téeméer la ak ñeent téeméeri téere yu ak ñeent yépp nga war a gëm ni nga gëmee alxuraan ni nga gëmee ca des waaye bu ne man julli laa gëm naa alxuraan ya ca des nga bëgg koo seppi sànni déedéet kon dootoo nekk ab jullit ni nga gëmee Seydina Muhammad ni nga gëm mboolem yonent yëpp itam doo ci wedd benn amna rasul bi am sal élimé mun kullu amal billahi wa malaaikatihi ba fa laaya ja jeex laa do fa reex benn ahadin ma ci teqale kenn kenn ñëpp lay boole gëm boo gëmee loolu nga gëm koy itam dogale suñu borom yi a ah, gëm alaxira alaxira nga gëm ne bis la boo xam ne bii day ñëw keroog la at day jeex ñu nekkaat yi beneen barab ak beneen beneen pàkk ak suuf soo bu ku rek suuf sii suuf soo xam bu ñu fa taxawee xaalisu gaal bi ñuy tëgg suuf sa xaalis boobu la moom la suuf sa doon nekk suuf weex tàll dara tax di melxati suuf si mel noonu ca la ñuy taxaw bu dekkee bis boobu kenn ko war nga gëm ne bis buy ñëw la te kenn ku nekk sa jëf képp moo la fay teeru booy dem bés boy àgg foofa amul kenn ko lay teeru ku sa jëf lo seen mu teeru la bo bëggee sa jëfa bo ci tiitee sa jëfa ndax wa an laysa lil insani illa ma saa wa ana saa saa wa soo yura suma su wa yusaaw jasaan aw kenn ko ne sa jëf rek dala fa borom bi tegal mu teeru la kon allah lu luñu wara a gëm la xam bu keroogee dom du fa jëriñ wayjur wayjur du fa dom doom kenn ko nekk da ngay daw sa morom ku seen sa morom da nga daw bis boobu sëñ bi na nañ koy baye xel te gem ko la ci doon muy gëm dogale yalla yi bu nexé ak bu naqaree nga xamné lu xew rek yalla ko dogal bu le nit doon fexel sax le mere nit ke ñaanal yalla mu musal la ci am fexem rek xamné mom day fexé rek yalla ay sotal bu yàlla sottalu dara du soti dafa am ñetti wàll yu dañoo ànd di dox ba si yàgg ñu dajé ben waay waa ji xaw a kàccoore jàpp benn wi dur ko am pes ñu ko fañé dur ko am pes wali wi raay rek lex bi na ciel di dem waji dabaat ko xëccat bu ñu mu duraat meneen pes mu raay rek continuer dem ñetti leen mu ngi duri am pes def dar daanu daal di Wali wala yu ñaari morom yi da ko yett da ko yow ndeke weesoo go fayanto ba tay defo ne sa dara ji yalla ak sa maqaama weesoo ne fayanto mu waatal leen suñu borom ne fayantoo maag mom bi pes man la fi fekk bim mu man la fi fek ñetteel rek borom lex bi la fa fek lu ko daal borom lex ba ko fa tek kon moom gëm na ni moom moomut lex bi moomut lenn lépp suñu borom xam delo na lepp yalla julli noonu la wara a suñu borom delo lepp yalla bu ab dogal ñewé nga nangone li suñu borom moo dogal xam naa kon dañuy teunk kaddu yi foofu di balu ak wa àq wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh di yok ñaanal suñu muntaxaa suñu borom gën ko fay yagal te eh, gën ko deural yeenam yu rëy yi mu muy daara ji nga xam ne ñu ngi ko tabaxal sëriñ bi nekkoon bokk ci yitte sëriñ bi wax naan lii badal xuddus la doon fi ko yàlla nañ ko ànd ba mu sottal ko du ma tañaan sëriñ bi du ñaan ko ba noppi tubaa jaww ja kiis la suuf sa kiis la ko fa jàngee boo bëggee xam da nga xam ku bëggut a xam ne kenn mënu ko xamal dara